Serigne Moustapha Diouf Lambaye président mouvement Réccu waaw nim mu moy mooy Moustapha Cissé da fi ñew ci suba ba mu ba mu yëgee ne fii dara baxatu fi ci lu jëm ci ñom parce que mobiliser né nit ñi waxtaan nañu ñom fi la ñew and ak ay mbër yu perte ak ay nervi yor ay 4 4 yu bari ak taxi ak ay yef yëfaan ñew yor ay cour jël ben pick-up du ko ko xeer bam fess ñu menacer ñu booba xam nañ ne dinañ ñëwaat. booba nag ñu nit lan bàyyi wut suñu bopp nag parce que lambaay lañ dëkk ta duñ ay ragal dugg ci biir def suñuy jëmtuwaay ba mu baax biñ toogee ba ay 14 heures ci lañ fi ñëw am benn waay bu taxaw ci kii bi ne ku ñeme na nga daw ku ragal nanga nga taxaw Moustapha Cissé Lo ñëw daal di saaga booba nag ñoo xam ne ci suñ kaw la jëm fekk dafa am benn yére bu ma ñawlu woon sama téer bi benn ñetti morso bind ci noo bu mag a mag ban seenee noo bi nag ci lañ wàcc attaqué ko doomam dóor ay bal ñoom ñu dóori bal ñu nit bàyyiwun suñ ci lañ génne ak mbooloo min àndal attaqué leen ñu daw ba wàcc fi seen i dàll puis que bële fi daw bàyyi ko fi ak seeni i dàll ñun ba suñ maam di ànd ak sëñ Touba fit ak gom ak ngor la àndee woon ak moom ku nekk dégg na sëñ Aliou Diouf Lambaye ba ko tubaab bi ne bàyyil sëñ Touba dana ko da ngay kàcc dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndomb ak tànk moo a yomb li nga wax noo lànk booba booba moom Moustapha Cissé Lo maamam mi ngi topp buur yi di raxas kuddam bam set mu def ci poosam yor biiram bu rëy fépp fu mu fa mën a lekk rek raxas ku dem sukku lekk ñun ngor ak jom lan te Touba gi feeg mouvement réccoo ngi fi ñoom duñ fi am dara parce que afdalul jihaad yi kalimatul haq inda sultaani jaahili yonent bi moo ne buur bu gëlëm boo ko waxee dëgg jihaad nga ñun noo bii suñ bakkan lañ ci teg ndax jihaad lañ ko def te Touba ragal dëkku fi waaw fetal tiire nañ ay bali fetal ba yaa ngi nii tiire nan ay bali fetal tiire nañ tiire nañ ay bali fetal bali fetal yaa ngi nii la preuve leen a ban bàyyi fi seen i dal wàcc fi seen ub oto waaw ak ay paaka. waaw Serigne Chambé di nuyu waa waa waa Touba gépp ne Lo li muy def population bépp ñu bañ koo fekk ci violent bi nga xam ne moom mooy dernier stratégie parce que moom wax na Touba gépp ne ñàkk na ko léegi gannaaw ñàkk na ko nag li mu ne am moom loolu la jël comme dernier stratégie ñun nag bu fekkee da nga am sa arme. amoo lu dul benn arme lu dul xeex rey nit rey taalibe Sëriñ Tuubaa ñi nga xam ne ñoo la defoon ngay député ñoo ñoo la defoon ngay député di peuple nga fas leen yéene taxaw ne bu ma leen reyee sëñ Sidi Muxtaar dana arrêté élection yi loolu bu fekkee ne moom rek la def comme stratégie élection yi loolu tax sëñ Sidi Muxtaar arrêté élection yi ñi ngi ñaan sëñ Sidi Muxtaar mu wax ak Moustapha Cissé Lo bu fekkee ne bëgg na élection yi am ci jàmm ak dal ñi ñaan président la république bu fekkee ne président la république taalibe Sëriñ Tuubaa gi muy ne waaw nan na arrêté Moustapha Cissé Lo wala ñu génn ko dëkk.